asalaamaaleykum warahmatullah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal dellu si di leen siyaare bu baax di siyaare mboolem ki topp Fall 94 Walf Sénégal analyse chronique yi am xam dañ leen ko defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen siyaare nañ leen ñu ngi jaajëfal na sunu mbokki sénégalais yi nekk ci diaspora bi partout dans le monde fépp fu sénégalais nekk rek jaajëfal nañ la siyaare nan la tey nag ñu dellu si ci réew mi ku nekk xam na ne ba léegi rek Ousmane Sonko procès moom moom procès procès procès rek wax dëgg yàlla nekk na loo xam ne ni moom yaakaar naa fi mu toll nit ñi moom maar nañ ci ay procès waaw maar nañ ci lool wax dëgg yàlla ndax xam nga réew mi daa rëyut te daanaka ñun ñi fi nekk ñëpp ay sénégalais lañ te kenn ku ci nekk boo weetee xam nga sa bopp bu baax a baax a baax a baax a baax li tax ma wax la loolu mooy boo wéetee yow buñ la euh, falee dara boo wéetee da nga xam lii ñu la fal lan la waaye nag dafa mel ni ñii ñu jiite am na ci ñoo xam daanaka dafa mel ni duñu xalaat mukk ci poste yi nga xam ne nii dañ leen koo fal kooku waaw projet bi nag nekk loo xam ne nii yaakaar naa ne fi toll nii dafa booy ci noppi sénégalais yi xam nga lii wax dëgg fa yàlla vraiment du lu munta ñàkk lu munta ñàkk amul ndax ku nekk xam ne ni am réew moom noonu lay doxe waaye nag dafa am yoo xam ne nii moom la nit ñi gën a soxla lan la nit ñi gën a soxla waxuñu fii ñu ni 2023 pétrole bi dafay feeñ ci lañ koy commencé di exploité ak lu jëm ci wàll zircon beek gaz beeg yooyu nga xam ne daanaka mën naa ne suñuy ressource la ñoo ko moom mais léegi lan moo tax débat bi mënuñu koo jëmale foofu noonu waaye ci ay coow yoo xam ne nii ayu kon léegi yéen daanaka mën naa ni fi mu toll nii yéen daal niñ ko gisee mooy maanaam yéen dañ leen a créé teg leen ci réew mi occupé ay pos ngeen war a wéet xalaat leen leen dénk lan la ngeen war cee jàppale ndaw ñi jàppale ci réew mi ngir en cas ëllëg bu ngeen fi jógee ngeen xam ni yéen moom lu mën a am am na lu ngeen defal réew mi nit ñi di leen xaar foofu noonu wax dëgg yàlla ñu jël benn nit boo xam ne ci senegal la nekk mu tudd Ousmane Sonko mu mel ni moom amu fi ndey amu fi na mu fi dara. saa su nekk rek lu jàll ñu indil ko leneen loolu nag ta ñàkk xëy na loolu am natt la boo xam ne nii dafa bokk ci ak dundam noonu la ngir mu nekk noonu lay demee loolu kenn mënu ko kenn mënu ko ku ko bëggoon a bañ doon ndax bañee fi mu fi mu toll nii Ousmane Sonko créé nañu baree baree baree bare ñoo xam ne kenn xamu leen woon ndax Mame Mbaye Niang mi wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam tey boo leen loon kan mooy Mame Mbaye Niang duñ ko xam xamuñu sax lan lan la jiite ci Sénégal voilà kon amaana euh, euh, moom tey jii fii mu toll nii mënuñu gën koo xam mais amaana bu liggéeyalee Sénégal bu wàccee dinañ xam moom mooy kan ndax li nga fiy liggéey euh, saa su nekk daf fiy des mais amaana na bu fekkee tey jii Mame Mbaye Niang tey jii moom ak Ousmane Sonko ñu commencé dégg Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang te ku nekk xam na ne Ousmane Sonko turam fi egg ci àdduna bi partout dans le monde surtout réseau yeeg ci aju kan kooku bu jotee bu jotee waatee keneen ñu naan Mame Mbaye Niang kooku noonu tey danañ ko jéem a xool kooku moom mooy kan ak lan la occupé dina xam ban poste la occupé fii ci Sénégal kon ñu mën a taxaw ci lan lii nga xam ni moom lañu ñu war a wax mu leer ci suñuy bopp ndax doon nañ ko fi wax ay jamono gaz beeg zircon beeg ya ci aju ak lii nga xam ne moo di pétrole bi ana fan lañ toll ci wàllu mbirum centre yi nga xam dañ ko war a defaral suñu doomi réew ngir ñu xam lan mooy matière pétrole fan la pétrole bi di jógee ak fan la pétrole bi di dugg ak nan lañ koy exploité ba bu ëllëgee ay étranger duñ fi ñëw di ñu di ñu di ñu di ñu nax di jël suñu pétrole di yóbbu voilà bu fekkee dañoo am ay ndaw ñu sawar loolu moom waxuma ko loolu moom marocains yi wax nañ ko égyptiens yi wax nañ ko algériens yi wax nañ ko mauritaniens yi wax nañ ko ba ci ivoiriens yi ñu ci bari wax nañ ko nee nañ yéen ay sénégalais ngeen jàmbaar ngeen ñu sawar ngeen ay jàmbaar ngeen ay royukaay ngeen dëkk bu ngeen dem da ngeen yee ñooña voilà kon bu fekkee ñooñu ñëpp ñoo ràññeet la loolu ba xam ko ci ñun léegi nag ñi fi nekk bëgg ñoo nelawal loolu nekk na loo xam ne nii nelawal bi lan la ay coow la ñuy topp rek ak i procès yooyu noonu te yooyu daanaka mën naan wax dëgg yàlla jëmale wul réew mi fenn li ñu war a wax ñu wax ko muy li nga xam ni moom la Sénégal soxla doomi sa sa doomi réew soxla ko muy ay xale yu nekk yoo xam ne ñu jéem leen a orienté ci loo xam ne nii euh, euh, ku ko dégg dana xam ne lii vraiment macha allah. ngeen xam ni def ngi seen effort mais bu fekkee mbir mu dañ ko bëgg a teg ci ñaari nit tey jii Ousmane Sonko aji Sarr la woon ñu nekk ci ñaari at di ci coow di ci wax tey ñëwaat nañ ci Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko encore procès waat léegi aywa léegi kon Sénégal léegi ci procès rek lañ nar a tënk réew mi ci procès rek lañ nar a orienté débat bi ci procès rek lañ nar Euh, wax saa su nekk guddi ak bëccëg xanaa amul yeneen yu fi nekk ana liñ fi taxawal liñ fi def fu liggéey bi toll liggéey boo xam biñ leen ko joxee depuis dix ans ba léegi nii liggéey boobu fan ngeen ci toll fan ngeen ci toll voilà teer baa ngi nii doon doon nañ ci coow ñu jógewaat ci teer ba nekkaat ci mbirum Mame Mbaye mi mais mbir mi nekk na loo xam wax dëgg yàlla nañu xam ne lii ñu nekk nii nekk na loo xam ne dafay gin dafay dafay delloo ginnaaw réew mi dafay ginnaawel réew mi développement bi ñuy wax daanaka mën naa ne jaaragul ci yoon woowu noonu parce que bu fekkee dañ fay nekk muy réew moo xam ne réew moo xam neex naa defar réew mi euh, xatul réew mi réew mu yaatu la réew mu baax la ay ndaw ñu sawar ay ndaw